ñu ngi am mbégte dalal meeru Yoff bokk itam ci euh, Yewwi Askan Wi Seydina Issa Laye Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay man it am mbégte bu baax ñëw bokk ak yéen jotaay bi. ñu tàmbali waxtaan wi ak campagne électorale bi am na léegi benn ay bés bi ngeen ko tàmbalee naka la demee fii ci yof waaw tàmbali gi moom xawoon na am sooxe tuuti ndax dafa yemoo ak tabaski bi te xam nga ne nit ñi dañuy dem ci seen i dëkk ànd ak seen njaboot donc bi ñu dikkee àllarba def nañu ndaje bu njëkk ak waa coalition wàllu fii ci Yoff euh, alxames bi euh, ñu def lu ñuy wax assemblée générale woo ñëpp waxtaan ak ñëpp wax leen ni ñu fas yéene doxale ajuma bi ñu seeti ay kilifa sàkku seen ñaan samedi bi nag incha allah ci la ñu tàmbali woon mbir mi fële ca Yoff Tëngoor ak quai de pêche bi nekk foofu. alors campagne bi tàmbali ñuy ragal fitna fu bëri euh, donte am na fu mu tàmbali géejawaay notamment Thiès tamit li fa xew dégg nañ ko ay militant wu yeew wi dal si kaw euh, yeneen militant wu yeew wi yu ànd ak docteur Babacar Diop loola yëpp noo ko gisee ak Thiès euh, fii nii tamit si yoof est-ce que amu leen lu ngeen di tiit si wàll woowu. waaw ndax. ñu ngi politique depuis 2007 élection yi fi xew boobu ba léegi participer nañ ci te kenn mësuñu dégg ci wàllu jaay doole ak violence. donc li ñu mën a leeral rek ci foofu mooy Yoff dëkku jàmm la ñun ñëpp ay mbokk lañu te incha allahu rabbi dinañu campagne ci jàmm ak dal. élection locale yi moo gënoon métti foofu ci ñun. wax dëgg yàlla cokkaas bi amoon na lu bari mais mosuñ cee tontu ndax li ñu yëkkati woon rek mooy jël lii di commune bi te yàlla defal nañu ko li xew Thiès nag dañ koy ñaawlu mais jàpp ne erreur la te incha allah kilifa yi dinañ ci taxaw ndox ci seen wareef ba jàmm mën a dellu si waat incha allahu rabbi fii si Yoff lan mooy enjeu wu législative yi pour yéen. waaw législative yi moom dafa weesu sama jëmm weesu jëmmu candidat yi fi nekk yëpp askanu Sénégal moo war a takku doon benn say pour euh, li nga xamante ne mooy ñetteelu mandat bi président Macky Sall ak ñu ñoom bëgg ñu mën leen tënk loolu bañ fay am donc loolu it weesu na ci it. suñuy jëmma ndax war nañu mën a taxaw di saytu taxawaayu assemblée ci doxalinu gouvernement bi te loolu aussi vraiment euh, poñ la yu am solo maanaam du élection wu nit mais élection askan wi la parce que pencum ndaw réew yi fa lañ mën a taxaw di saytu li nguur gi di liggéey fa lañ mën a taxawit loi yi fiy dugg ñu mën ko di saytu bu baax lépp jëm ci njariñu askan wi alors ñu taxaw tuuti ci coalition yi Askan Wi euh, bu ay militant wu docteur Babacar Diop bokk ci yi laalee ak yeneen yu bokk ci yi loolu dafay wone ne tam am na fuy metti ci seen coalition bi li koy gën a firndeel mooy kàddu yi tàmbalee jóg te jugoon sax ci local yi muy ay nit yoo xam ne jàpp nañu ne gisatuñu seen bopp ci ni coalition bi doxee est-ce que yaakaaroo ne wala ragaloo ne lii su wéyee ci tasaaroo ngeen jëm. waaw coalition moom mënoo bégal ñëpp ndax euh, poste yi ñuy xëccoo lu néew lay doon ñi ko soxla bari. da ngay jàpp ne man Seydina Issa mu yeewi sagaloon na ma def ma candidat donc du waruma xaaraat ci yeewi it bu ma joxul raaya wala jox ma cër ci élection yi man banque sama loxo déedéet la ma war mooy nañu ànde woon ak man jàppale ma dooleel ma naa àndaat ak waaye yeewi dooleel ña ñu tabb ndax fi moom ñun ñëpp benn bopp lañu mais coalition nag moo nit ni mel waaw donc euh, loolu moom wax dëgg yàlla dañuy woote rek kenn ku nekk nga fàtte sa bopp xam ne li ci ëpp solo mooy xeex bi ñu war def pour président Macky Sall jógee ci boppu réew mi naka ngeen yaakaar ne ngeen war a def ba euh, dëgëralaat ànd bi si biir yeew bi ndax am na ñoo xam ne moom fi mu ni mer nañu ba futu laal moo leen tere toj. waaw waxtaan rek ak euh, dalal nit ñi xam leen ne bu ñu yàlla dimbale président Macky Sall jóge fi bu dee ab cër kese la cër yi dina bari lool dina am mais nag ñu bañ ko def séddoo bukki ku nekk jël dara pour mën am dara mais nañ séddoo pour ku nekk mën a jaamu soxlay askan wi je pense foofu la réew mi toll ndax wax dëgg yàlla 60 ba léegi 1960 ba ñu amee suñu indépendance moo amee suñu bopp ba tey euh, ay cër moo réew mi donc dañuy woote rek ne nañ ñëpp dal ànd ak jàmm li nga xamante ne mooy euh, li ñu war ci réew mi ñu mën ko taxawee te fàtte suñu jëmm yi. Hmm. yow mii sax ñu bëri ñu ngi laaj ndax yaa ngi ci coalition ba tey ni nga si nekkee woon sa njëlbeen. maa ngi ci yeewi bu baax ndax yeewi li koy doxal fii ci yoof ci laa bokk ci xol bi laa bokk yeewi saa yu woote manifestation ci dëkk bi. ñuy dem obélisque ak manifestation ya nga xamante ne tàngoon na lool ah képp ku ma gis gisoon na ma ci. waaw ah, jàpp nañ ne fësatoo si na nga fësee woon. non xam nga nag euh, politicien ñu ci bari buzz la ñu wut man utuma buzz la ma war mooy la ma war def la may liggéey ci base bi te tey boo xoolee yof kenn xaaruju woon. donc tey ñun am na nu ñuy politique am na nu ñuy doxee bi ñu yàlla falee ñu bëri dafa nekk mbetteel si ñoom mais am na ñu bari nekkul méteel si ñoom ñu ñu dëkkal parce que xam ñu ne fukki at ak juróom ñu ngi ci terrain politique bi di dox mais mosuñ nekk ay nitu rajo mosuñ nekk ay nitu télé li ñu ëppal solo mooy nu ñuy ànd ak askan wi di saafara seeni jafe ci loolu la ñu a nekk donc nit ñi nag ku nekk am nga sa xalaat yàlla mi ñu sàkk ñëpp newuñ ko waaw manit it mi may man mi yàlla sàkki nit xaaruma ñëpp ne ma waaw donc faaw nag nga am ay adversaire loolu mënul ñàkk bu ma ko accepté wul aussi tamit du nokk ay du ma nekk woy politique bu baax du ma doon it nit ku gëm yàlla ndax nee naa yonent yàlla Muhammad mooy gën di mbindeef woote na ca Màkka alayhi salaatu wasalaam mais am na ñu ko weddi te loolu it lu am la lu lu lu war la parce que yàlla mi ko bind moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad ah moom it suñu borom subhaanahu wa am na ñu ko weddi donc man nag unanimité boobu mënuma ko am utuma ko sax. am na ñu wax ne nag euh, mooy ñi jàpp ne fësatoo ci coalition bi ña ngi koy euh, appelé keroog ba nga demee palais ba léegi euh, loola loo ciy tontu. xam nga ñoom bi ñu ànd ak président Macky Sall 2012 man dama ne du ma voteel Macky Sall du ma ko dooleel man je n'ai jamais voté musuma voteel Benno Bokk Yaakaar musuma voteel président Macky Sall parce que musuma doy ci taxawaay ci yor ci réew mi donc du tey laay ànd ak moom te ñu nit wax dëgg yàlla am na ngëm-ngëm mu ñu am ci suñu réew politique dundaluñu yàlla mu ngi suturaan te dafa am wax dëgg yàlla nu ñu gisee politique mais nit ñi euh, ñoo ràññeewul képp ku àndul wax ak état ci cër bi nga yor ci maire bu yaboo bul wax waa trésor bul wax ak sous-préfet yeeg administration territoriale bi parce que ñoo fi nekk ñoom la fi yàlla teg faaw ñu waxtaan ak ñoom pour saafara jafe-jafe askan wi mais maa ngi yor baatu askan wi nguur gi moo yor sama alal nguur gi mooy saytu man li may def bu dee nag waxook ñoom mën nga teggi sa nomba mën nga tekki sa nomba tànk xam ne matawoo li la askan wi fale est-ce que sa ko notamment Khalifa Sall mi nga xam ne jàpp nga ne mooy sa kilifa ci wàllu politique. xam nga Khalifa ñun dañu ko mandaté mu ñu ci Yewwi donc moo fay suñu baat moo fay suñu kudd may dem régler jafe-jafe suuf fi ci yoof woo naa ko yëgal naa ko ko ba mu xam ko ba ma génnee it defal naa ko lii di compte rendu Barthélemy Diaz aussi di maire de la ville de Dakar di suma mag xamal naa ko lu ma fa yóbbu woon ak lépp man nag ku ma xamul euh, dootoo ma xam mais la ma la wax rek la ñu war la ñuy def bu jaree demaat pour régler jafe-jafey askan wi dinañ fa demaat régler jafe-jafey askan wi ah donc euh, soppiwul dara suñu ngëm-ngëm ci politique soppiwul dara suñu taxawaay ci li nga xamante ne mooy suñu doxalin ci wàllu administration territoriale bi. soppiwul dara itam ci relation bi nga amoon ak yenn leader si Yewwi. waaw nee man xalifa Sall laa xam moom mooy fay sama baat moo fay sama loxo moo fay sama lépp ci biir conférence des leaders te Khalifa Sall sama diggante ak moom tey la gën a neex ndax wax dëgg yàlla euh, yar na ma ci politique moom njëkk dénk responsabilité yu stratégique ci wàllu administration te macha allah alhamdulilah. Euh, loolu fàttewuma ko loolu it moom xam na ko te xam na cër bii ma ko jox ak diisoo bi may diisoo ak moom saa su ne pour ba ñu jum ci sama doxalin. Mm. léegi mu am juróom benn weer bi nga nekkee ci boppu Yoff naka la yorin wi di doxee tey. waaw Yoff moom bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi lépp sauf administration donc euh, gis nañu ne vraiment am na ay tolof tolof ci yorinu mairie bi bi ñu ñëwee la ñu def mooy njëkk a saytu li nga xamante ne mooy administration bi yeesal ko. saytu neen fi aussi ay bor yu ñu amel hôpitaux yi lu mel ni seen Senelec yu mel ni Sen'Eau ak ñeneen ak ñeneen yooyu incha allahu rabbi ñu ngi ci yoon yi pour fay ko nànk-nànk fekk nañ fi aussi ay bor yoo xamante ne wax dëgg yàlla amul bopp amul genn ay nit indil ko ñu ne ancienne équipe bi ñoo ko fi amee woon man loolu ñun duñ ko fay. lu tax doo ko fay te euh, affaire bi war nekk continuité. xam nga finance publique dafa am lu ñuy wax vraiment nu ñuy engagé dépense dépense da nga koy engagé. liquider ko ordonnancé ko fay ko donc procédure yooyu yëpp bor yooyu yu ñu fi fekk yu ci bari respecté wuñu ko ndax euh, wax dëgg yàlla dafa am ay charte yu fi nekk yu ñu war a yore xaalisu askan wi yu ñu war a engagé ay dépenses donc loolu bu ñu ko gisul automatiquement suñu xel dafay tey dañuy taxaw donc loolu daal lañ bëggoon wax ne dalal xelu wi ni lu jub lu ñu fi fekk di leen ko fay lu amul bopp lu amul genn lu ñu fi fekk xam te ne ay caaxaan rek moo ko lal loolu aussi duñu ci taxaw duñ ci dugg incha allahu rabbi nga def état des lieux gis ne am na waa xam nga ñun moom suñu rôle rek mooy wax askan wi li fi ne mais Cour des comptes dina def mission fii ci commune bi pour saytu li fi amoon ñetti at yi ñu weesu donc ñoom la ñuy déglu bu ñu paree dinañ ñu wax euh, lu fi baaxul woon ak ñoom lan mooy seen recommandation pour ñun ñi nga xamante ne ñoo ñëw bees ñu gën a góorgóorlu ci yor ci yorinu alalu askan wi léegi mu am juróom-benn weer wax naa ko sànq ba nga toogeeg léegi loo fi def lu askanu Yoff mën a teg bët mbaa teg ci loxo. waaw juróom-benn weer moom gàtt na mais góorgóorlu leen ci. fu mel ni travaux quartier Terme Nord def nañ fa juróom-ñeent fukk ak ñeenti branchements sociaux ak ndox parce que quartier la boo xam ne askan wi dañu amoon jafe-jafe pour am ndox def nañ fa salle boo xamante ne dañ ko fekkoon ñu koy tabax ñu tële ko yeggali ñu yeggali ko ak suñu benn partenaire pour révision yi xale yi dafa mën jànge def nañ fa aussi jardin public ak suñu ay partenaire lancé nañu programme UF verte ñu ngi reboiser ñu ngi setal ba teg nañu kuréel boo xam ne par arrêté municipal waree fam mooy setal ak sellal dëkk bi ak it kuréel boo xam ne waree fa mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu suuf ndax dëkk bi maire yu bari yu daanu wàllu foncier moo leen daaneel donc ñun dañ si bëgg raxasu ba set oo askan wi yorandoo kuréel boobu ak ñoom pour ak leeraange di ci gën a am ci wàllu éclairage public aussi remettre na à niveau commune bi def nañ ci intervention yu bari diggante Ouest Foire ak Nord Foire teg nañu ay point de regroupement normalisé yoo xam ne pour bi d' appel d' offre bi pour tabax fa benn wax dëgg yàlla gunge femmes yi ubbi leen benn ligne de financement solidaire boo xam ne dina mën a tax ñu gën a góorgóorlu ci seeni i activité donc daal ci dëkk bi ñu ngi jéem góor góorgóorlu ñu ngi dajeek askan wi def ak ñoom des audiences publiques pour laaj leen mooy seeni i soxla ñu koy jéem a saafara ñu ngi aussi enrôler ay ndaw di leen yóbbu ñuy def formation professionnelle def nañ fi daal ay jéego yu bari yoo xam ne feex fan yu néew dinañ leen génneel benn bataaxal leen wax ne ñun kat lii lañ jot liggéey bi ñu yàlla denkee dëkk bi ak léegi. ñu bari nag gis ne xëy na ni nga waroon a communiquer communiquer woo ko lu tax ngeen yéex a xëy na fësal li ngeen nekkee. waaw ñun moom ñuy dox nànk-nànk mais tey am na lu ñu wax réseaux sociaux muy Facebook WhatsApp Telegram. Instagram yooyu yëpp tey boo xoolee commune bi am na fa ay page man sama jib bopp am naa fa ay page lépp lu ñu def yàlla dogal na ne dugal nañ ko fa même désencombrement yi ñu doon def yëpp dugal nañ ko fa phase yi di ñëw aussi dinañ gën a góorgóorlu gën ko fesal mais nag mënuñu fekk information bi yóbbu ko fépp donc site web bu mairie bi aussi mu ngi commencé fonctionner ak yeneen donc di leen gën a góorgóorlu ci wàllu communication ndax askan wi di xam ne wax dëgg yàlla waaye rëccoo ñu li nga xamante ne joxoon nañu ko ci mairie bi incha allah alors euh, maire Ziguinchor xëy na sànq bokkul woon ci laaj yi yëkkati na fi ay kàddu tuumaal président Macky Sall ne dafay beddi waa Casamance notamment joolaay euh, ñu tuddee ko ethnicisation de la politique ñu bëri wax ne lu mun a indi euh, loraange la si réew mi kàddu yi Ousmane Sonko yooyu ndax ànd nga ci. waaw xam nga président moom li ñu koy woo mook président Ousmane Sonko yëpp mooy nañu fexe ba saytu li nga xamante ne mooy ñaru as njariñu askan wi te di fa doxi di ko taxawee. donc euh, dañuy woote rek ne nañu boole askan bi yëpp xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar jafe-jafe boobu euh, moom mu am di ko saytu ñun remarqué nañ ko fii ci yoof ak ki nga xamante ne moo yoroon bi ndax saa su nekk day xaajale diggante yoofu cosaan ak yoof bi nga xamante ne mooy yoof bu bees bi mooy euh, gox samp yu bees yi ci gox goxaat yi donc loolu aussi lu may ñaawlu la di woo nit ñi rek ne ñun ay sénégalais lañu fu ñu war a mën a dem war nañu mën fa taxawal liggéeyal réew mi alors ñu ñu ñu wax nag ci mbir mi nga xam ne jamono yi moo lëmbee réew mi di li ñu naan force spéciale ñu am ba tey sax ñoo xam ne ñu ngi wéy di leen ci teg loxo am euh, koo xam ne rëcc na si ñu ne kaso Pape Mamadou Seck euh, François bu moom mujjee cee ñàkk ba kanam yow mbir mooma noo ko jàngatee en tant que leader u Yewwi mais aussi en tant que citoyen sénégalais waaw ak tiitaange la président Macky Sall bëgg a indi ci réew mi ndax nit ñi bañ a waxti seen xalaat bañ a dox ci politique bañ a wax ci politique mais loolu mënul nekk ndax moom dafa xeex ba yegsi fu mu yegsi donc mënul xañ aussi askan wi ñu mën a taxaw xeex seen xeex def la leen war donc loolu aussi dañ koy ñaawlu wax euh, famille Mancabou ñu ngi leen di masawu wax leader yeewi askan wi ba ginnaaw daf ñu xeexal nañu taxaw assumer suñu responsabilité xeexal njabootam ba ak leeraange mën a am ci li nga xamante ne mooy lu ñaaw luñ ko def. lana ci nar doon wala war a doon taxawaayu waa yeewi. rek xeex ba ñu leeral mbir mi ñu am une autopsie impartiale maanaam saytu li nga xamante ne mooy la tax euh, François Mancabou faatu vraiment loolu daal mooy si suñu wareef ndax ñu mën a setal waa dëgg yàlla deram xam ne xarwul xam ne dañ ko dañ ko dañ ko sonal gaañ ko ba mu ñàkk ci bakkanam. jërëjëf Seydina Issa Laye Samb maire yoof amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. waa mbégte mi yëpp ci ñun la ne ndax ñu gën a mën a leeral askan wi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax.